luy yar Babacar sillaa wax nañu ko ci wàllu yar kon waajur bu nekk yéen papa yi yéen yaay yi ngeen dolli ñoo gën a jàppale gën ñoo bàyyi xel li nga xam ne la leen diina sant si ñun ñi matal ko ñu nit ñi mën ko mën a matal jëmale ko si suñuy njaboot. waaye imaam tey fi ñuy taxawaat mooy wàllu actualité maanaam euh, tey jii dañoo gis euh, téléfilm yi téléthéâtre yi nga xamante ne mu ngi am xale yi dëkk ci tele yi di ko seetaan ban jàngat lañ ci am ak xale yi. sa laaj am na solo waaye bii moom en tout cas man moo ëpp solo ci man parce que gis nga téléfilm yi su dee xale yi yàqu nañu cent pour cent quatre-vingt-dix-neuf virgule neuf ci téléfilm yi la jóge ah waaw seen influence dafa gaaw te dafa am doole xam nga ñun fii ñu nekk télé dafa nekk lu rëy ci télé télé télé la télé ñun gëdd bi mu am ci ñun xamuñu ko sax wallahi mesuré wuñu ko gis nga soxna ami bi nekkoon koñam nii ñu xam ko mu ànd ak nit ñi di jaxasoo di dem bokkul ak soxna ami bii génn tele soxna ami bu commencé génn télé dafa am beneen dimension bu ko nit ñi yéegal fa lañ koy xoolee day nekk royukaay waxam dañ koy bàyyi xel solom dañ koy bàyyi xel ay jëfam dañ koy bàyyi xel ami day commencé di influencer ci askan wi te mon temps ami moo nekkoon fii ci ak mbedd mi di jaxasoog nit ñi amul woon problème mais bu xasee dugg télé day nekk beneen nit mais ñi dem télé ñoom xalaatuñu loolu ñoom dañ jàpp ne da ngay gis ku nekk télé mais da ngay defee kii dafa nekk këram nekk sax ci biir néegam ndax benn comportement parce que ku mën a télé fexe ba say awra feeñ yow jàppoon ne sax yaa ngi ci mbedd da nga jàpp ne yaa biir te xamoo influence bi nga war a def léegi nag téléfilm yi dafa amoon fukki at ci ginnaaw jàpp xaw jege sax ñaar fukki at ay tubaab ñoo ñu daan indil film am na yu fi jaar bugguma lim seeni tur parce que dañoo bare yépp amoon influence ci xale yi ay Rosa ay Marimar ay Veydey lu lu lu ne jaar na fi mais da daan gis télé yooyu bu daan am à partir de vingt kenn dootul génn ñëpp ñëw concentré wu ci télé bi te tubaab la ñuy làkk seen col rafetul seeni waxin xëy nañ ñi ko xam xam nañ ne wax bi des na parce que affaire mbëggeel rek la ñuy wax te boobu am nañu yeneen problème yu dul toog di bëggante ñu dem ba yàgg Sénégalais yi di kaas loolu naan bon suñu télévision yi tubaab yi ñoo ci nekk mu mel ni artistes yi dañoo yëg loolu ñu fipp dem defar ay téléfilm yoo xam ne wolof yi ñoo koy def sénégalais yi ñoo koy def te ci làkku Sénégal lañu koy def muy wolof loolu nag bi mu ñëwee moo ëpp impact ci askan bi mais ñooñu bi ñu ñëwee au lieu ñu profité ci suñu diine suñu aada ñu yar ci njaboot gi ñoom ñu dem indiwaat culture oxident di ko def ay téléfilm ci Sénégal mais dañu yàpp téléfilm yii ñu ñuy defloo nii culture Occident lañ ñuy defal ay téléfilm mooy ay jigéen ñoo xam ne xoolal théâtre yi ma lay wax de ba mu jeex bëggeel da ci ne bëggante ñaar ñuy farantu jëkkër ak jabar amul beneen enseignement ñëpp farantu jigéen ña farantu góor ña farantu ñëpp farantu xolo téléfilm yëpp amul exception te kiy farantu amu ci kersa da koy wax publiquement ki mu bëgganteel ñoom ñaar dañuy taxaw ci digg télé bi ñu leen di filmer ñuy def ni jëkkër ak jabar di def loolu ku seetaan téléfilm yi gis nga ko nëbbuñ ci dara dañuy tëdd seen lal ni jëkkër ak ni jëkkër ak jabar di tëddee ci lal lépp lu jëkkër ak jabar di defante dañu koy def xale yi di seetaan loolu loolu nekk impact ci ñoom après xale yi génn di roy loolu ñoom tamit kenn ku ci nekk jàpp nga ne da nga war a am partenaire boo àndal moo tax ñoom ñoo yàq suñuy njaboot téléfilmu sénégalais yi li ñu yàq ci njabootu Sénégal yi tubaab yi yàq nu ko fi te nag dafa jot sa que ak état bi taxaw pour téléfilmu yooyu ñu arrêté ko mbaa ñu tegal leen ay réglement yoo xam ne ku sa awra di feeñ dootoo ci génn kuy génn télé dañ la war a tegali charte yoo xam ne am na kàddu yu dul jàll gaa loolu am na censuré censuré daan na am laay wax mais léegi censuré presque amatul lan la ñuy censuré léegi xëy na sax lu yiw mais di jigéen dox awraam feeñ góor dox awraam feeñ kenn du ko censuré dañu koy bàyyi parce que day def buzz moo xam ci internet bi moo xam ci yeneen télé yi loolu moo tax téléfilm yépp sexe la ñuy filmer dañuy tànn ay jigéen yu rafet ay mannequin ak ñoo xam ne na ma yàlla baal bu njëkk ñëpp xamoon nañ leen ci teritoire yi ñuy taxawaalu di wut fu ñu làqatu pour jaay seen bopp tey ñooñu ñoo nekk ci télé film yi sunu njaboot yi di leen xool di leen roy ñu leen di wan ne mën nga am jëkkër di farantu loolu am na ci télé yi mën nga bëgganteel ki nga bokkal ndey ak baay mën nga boole ñaar ñu bokk ndey ak baay nga takk leen baay mën na tëdd ak doomam yaay mën na nopp doomam yooyu yëpp def nañ ko téléfilm fii góor jigéen góor jigéen nekk ci téléfilm yi c'est-à-dire loolu li muy tegtale mooy ñii xamuñu ñoom impact bi ñuy def ci société bi xamuñu ko ba pare amuñu capacité gàddu responsabilité bu toll noonu amuñu ko kon loolu lim ñuy tegtal mooy téléfilm yi ñëpp dañ cee war a taxaw non seulement waajur yi war nañu taxaw seen kër ne xale yi dootuñu ko fi seetaanati mag sax dootu heure bu commencé nu fay loolu benn la ci ñaareel bi ci des CNRA taxaw ci pour ñu arrêté leen seen xeeti téléfilm yi nga xam ne dafay def influence yu njaboot gi di yàq seen jikko di dindi seen kersa di leen may fit di leen wan sexualité rek loolu war nañu fexe ba téléfilm yi dindi ko seen biir wa illaa ñu arrêté ko ndax wax naa léegi ne ñoom influence bi nu am ci ñun kenn amu ko wax ma ban téléfilm moo fi jaar ba jàll lu dul gis nga na ñuy soloog na ñuy waxee xale yi di ko def ci mbedd bi ñëpp ami fans ñoom ñëpp am na ci groupe bu ma gis barki dem bi ñu demee Côte d'Ivoire dañ leen doon teeru mel ni ay héros yow ab théâtre kat lan lañ ciy teeru koo xam ne li muy def sax gëmu ko gëmu ko parce que lan moo tax mu di ko def day ñëw nekk benn benn jigéen boo xam ne amul jëkkër te moom am na jëkkër mu taxawaalu am keneen kuy ànd ak moom keneen gis ko ci télé bi jàpp ne lii lu normal la moom amagul jëkkër mu dem wuti faam te kii li muy def nii du dara da koy def parce que day wut xaalis ñoom li ñuy def amul benn mbubb la bu ñu sol bu ñu paree dañ koy simmi ne dem mais mbubb boobu dafay def influence ci askan bi moo tax ñu bëggoon téléfilm yi ñu garanti leen ñoom ñuy def ay film yoo xam ne dafay nekk culture sénégalaise oustaz euh, bala ñuy loolu influencer xalé yi tay artistes ñi nga côté mm-hmm. euh, par exemple ki nga dafa la xamal am des par exemple euh, lim lay que après muy ak faram bobu est-ce que tamit yow mi yow a au lieu que bu ngay roy nga jangat est-ce que tamit du xam nga su fekkoon loolu la dina baax mais xoolal la télé la plupart télé film yi du sanctionné ku mel noonu théâtre yi fi jaar ñi doon farantu kenn sanctionné wu leen fin wu théâtre bi toroxuñu amoon na fi appartement ba xawma 200 nan ñooñu doon mbaraan góor ñi rek ku dugg génn ku dugg génn mais ñooñu def nañ fi bës boo xam ne am fi xaalis boo xam ne te xam nañu defam recevoir góor nangu sa xaalis fexé ba dem ak yow te do ma a tëdd ak ñoo jël fukki far ak juroom ñet ku ci nekk nga diko entrer muy dugg di génn ñu def ko xoola ba ñepp dama fatte tour bi dina ma neex xam dinañ ma bal sax parce que yeen yi nit ñi duñ ko def mais man mom yoy sama yoon neeku ci ñoom dañu defoon impact benn jamono di wone mbaraan dajale fukki góor di ànd ak ñëpp joué nañ épisode yépp ba mu jeex amul sanction toroxuñu alkuwuñu delluwuñu ginnaaw théâtre bu ñëw bi ci topp day gën a luxe dañuy gën a am xaalis dañuy gën a nekk ci place bu luxe mais bu ko jigéen ñi gisee ne man maa ngi tardé ndekk affaire bi nii la yem ci benn góor nekk da ngay tardé xaara xaara xaara xaara xaara te ñoom boo waxee dañaan la dañuy jàngale mais jàngale du nangu jigéen ubbi appartement dajale fa téeméeri góor di encaissé di encaissé def ci 10 épisodes te amul sanction kon ñom bu doon dañuy jàngale du doxé nonu té te loolu mën nañ ci lim benn ñaar ñett dama lim bobu kessé benen bi ci des moy soy jàngale da ngay moytu influence walé ba lu bon li ëpp doolé lu li te ñom seen lu bon dafa ëpp doolé lu épisode wala ñu ñu def ci ben ami bu baax ak petit ñom ñaar bo séquence yi ñu am ci épisode bi cinq minutes la chaque une minute am nañ ko ah, ami da yaru nit ku baax baax am une minute séquence bobu dem ñu indi ñaar ñuy farantu waat ñuy jaay seen indi ñuy liggéey nit ñuy njabarante indi lu bon fukki yoon waat ben bu baax film bi bu 30 minutes 25 minutes yëpp négatif lay jàngale 5 minutes bi moo jàngale lu positif kooku nan lay amee impact te seetaaneel téléfilm yëpp lu tuuti lañ ciy rax wax ne lu baax la mais lu baax loolu lu bon li da koy mëdd bu subaa bu ñu xëyee kenn du waxtaane lu baax li ñu bon ñi rek lañuy waxtaane kon loolu tamit bokk na ci li nga xam ne ñoom dañuy mbubboo ne dañu bëgg a yee askan bi dañu bëgg a jàngale bu njëkk dañ daan wax ne artiste mooy aar aw tiis mais ñoom aaruñu tiisu kenn dañoo yokk suñuy tis suñuy metit influence suñuy jigen gem lo leen luxe nga xamne legi ku amul alal dosai, sey gi danaan buma amul alal jigen ñi duñ ma sëyal jigen ñi ne man duma ko amul alal ka social mu duma ci dugg ñepp ne ka social duma ci dugg ah, kan mo neewul ka social ci adina bi ñepp soxla yalla n'est-ce pas gis na fi théâtre bo xamne ay théâtre yo xamne tas na koo xam ne ci théâtre bi daf ci nekk jëkkër joo xam ne daanaka dafa nangul jabar ji ba jéggi dayo jëkkër ji jabar ji ne ko oh diw daal mooy jëkkër bugguma tudd turam comme ni ma defoon ñépp ko xam mooy ñi doon wër garab bi noonu rek waaw wër wër wër wër yu kenn xam soxna si ne jëkkër ji bilaay diw mooy jëkkër jëkkër nii lay mel jëkkër day jonge bëgg jabaram di ko nangam mu ne ko su dee jëkkër noonu lay mel demal nga sëyal ko ñu nekk di ci wax ba mu ko théâtre boobu lan la jur ay sëy yuy tas gis naa ji koo xam ne jabaram jëkkër ji daf ko takkal wujj mu jam ko paaka mu dee jëkkër ak jabar di ci werante ba seen sëy tas cest di ñoom influence bi ñuy indi ci askan bi li mu yàq te mënoo joxoñ baaram lu ñu defar li coow li di bëri yëpp kenn mënul wax ne société bi lii fi baax téléfilm yi ñoo ko defar amul te mën nañ la joxoñ li ñu yàq kon ñoom nañu yëg ne yoreel na nit ñi ak ci defar lu baax pour jox ko askan wi amuñ droit di profitoo ci alalu askan wi pour di def lu bon ndax téléfilm yi ku ne xam ne ne ay milliards moo ci ne xam bu njëkk million lañu doon wax léegi milliards la parce que film bi dañ koy jaay ci réew mi jaay ko bitim réew dañ koy jaay ci réew mi jaayaat ko bitim réew gars yi di ko traduire ci beneen làkk lu tax parce que façon bi ñuy soloo moom la àddina soxla mooy col gu ñàkk teggin façon bi nuy waxee wax bu ñaaw bu amul daraay diine amul daray culture loolu moo ne ci àddina bi loolu moo tax ñuy jaay seeni film mais film bu ci yiw am teggiin am yar nekk culture sénégalaise dañu naan du am xaalis parce que fii lay yem ci Sénégal mais tubaab nag boo xam ne gëmul yàlla gëmul yonent bi gëmul alquran gëmul yar gëmul teggiin bu mënee apprécier sa film mooy sa film yow yonent apprécier wu ko waaw kon loolu nañ ci bàyyi waat xel bu baax a baax a baax a baax mais ay lobby ñoo nekk seen ginnaaw di leen financer loolu foog ñu xam ko de télévision yi dañ leen di milliards lañ ciy def gis nga télévision yi ñuy dem fii da ngay espace millions jékki saa am 20 sponsors 18 sponsors xam nga sponsor du ay caaxaan benn téléfilm boo xam espace bi mu yore yow boo ko soxla woon nga fa la 32 millions wala 35 millions moom chaque jour mu moom mu espace mais ànd 18 sponsors wala 20 sponsors, parce que ñi koy def ñom seen yité moy na société bi pëccoxoo na société bi yaq na jigen ñi mom seen bop na xali yi mom seen bop na na kersa sa jeex su ko defee ku bëgg def lu bon do am dara lu la baare mais fi ak jigéen ñaa ngi muuru di melni, di yiw so bëggee dugg da ngay am baaraas kon lu bon li ñu bëgg def du jall ñi ngi jaaree ci artistes yi ak téléfilm yi pour di xàll yoonu mbon pour sénégalais yi man ci jéggi na ci artistes yi yeewu bu ñu ko xamul woon seen cinquante mille yooyu ñu leen di fay gis nga ñuy joué théâtre yi pay gu bon lañ leen di fay ki bind film bi koo koy récolté ay millions mais acteurs yi mu jël ay prix yu bon lañ leen di fay ñoom nañ génn tele rek ñu fay la benn cinquante mille francs ñii benn quatre vingt mille francs ñii benn cent mille francs nga joué épisode bi épisode bi mu jaay ko ay millions yow nga dem fële di taxawaaluwaat mais dañu artistes yi dañoo sonn te xamuñ ne ñiy bind film yi dañ leen di exploité jaay loo la sa bopp jaay sa image jaay sa lépp lekk xaalis bi bàyyi la ngay taxawaalu yow boo ci defee lu la yàlla jéppee foo koy waxee ci nanu yeewu te joué lu baax luy jariñ askan bi ñoom yàq nañ suñu éducation wu doom yépp doy na waar ah, yaakaar naa ne sam artistes yi euh, kon message boobu yéen a ko moom nañu yeewu te joué te joué lépp loo xamante ne dina njariñ askan bi artiste tur bi kon na wuy ju borom kon euh, mbokki artistes yi ngeen bàyyi ko xel bu baax a baax message bi nga xamante ne imam Babacar Sylla lancé na ko waaye imam sànq da nga wax ne comme par exemple da ngay joué mu dem bitim réew wàllu bitim réew boobu laa bëgg a taxaw ndax tey it junjoon nga ne nit parent yi bu ñu desitaan loo xamante ni logigul nañ fay télé yi mais tey xale yi toogatuñ ci télé yi seeni portable la ñuy yore dem ba France Europe nga nekk sa biir néeg fii Sénégal fii ci camp nga dem ba bitim réew te sa waajur xamuñu ci dara est-ce que tamit xale boobu lan nga ko war a mën a wax. lii nag mooy li complexe. fii daal la problème bi nekk mooy léegi même boo fayoon télé yi xale yi seen kii lañ yor. mën ci def lu toj àddina te kenn du ko yëg léegi nag lii moom nattu la nattu bu rëy la mooy àddina bi toll na foo xam ne kenn mënatul maîtriser nit ñi nii nii non non non loolu moom mënu nekk ku bëggoon a contrôler sa njaboot ne du ñu xool lu dul lii doo ko mën ndax lii xanaa nga xañ leen téléphone kese mais fii ak téléphone mi ngi am lépp loo bañ ci télé bi nit mën na ko def ci poche di dem moom mën naa xaar ba tëdd ci lalam sàngoo mbàjjam tijji téléphone lépp loo ko tere woon ci télé bi da koy gis fi léegi nag loolu moom foog ñu nangu ne problème la ñaa ñaari solution am na ci benn bi ci nguur gi la beneen bi ci waajur yi bi ci nguur gi mooy lan mooy mën nañu fexe ba jaww ji euh, ñu bañ ci am agsi ci film yu bon yi lépp luy wane sex bu leen neexoon ñu codé ko gisoo ñuy def yenn film porno yi dañu koy codé soo fa bëggee dugg am na benn code booy dugal pour ñu jël sa crédit nga mën faa dugg su leen neexoon ñu codé lépp lu sexualité nekk ci internet bi nga xam ne kenn du fa am ak Chine ay Facebook YouTube yi amu fa xoolal ni ñu développé comme fii suba ngoon guddeeg ba ca nga yendu ci Facebook bi non amu fa dañ dañ ko tëj xëy na nag nee nañ loolu dictateur la mais dinañ am occasion wu yar seen xeet yar bi nu bëgg parce que xam nañ ne tant que réseaux sociaux yi mi ngi am mënoo maîtriser sa askan kooku moom lu sax sonn ñoom solution boobu def nañ ko mooy état mënoon na tëj lépp luy sexualité ñu fexe ba codé ko code boo xam ne euh, xale yi duñ fa am accès wala sax mag ñi duñ fa am accès loolu lu mën a nekk la parce que yooyu amulul njëriñ benn doomu aadama muy toog di seetaan ay lu koy wan awraak yu kenn xamul loolu amul woon sens pour ñu def ko lobby yi koy def yàq nit moo leen tax a jóg benn beneen bi ci des mooy waajur yi teel a yar sa doom def ci moom yàlla xale bi boo ko jàngalee ne ko sa bët bii boo ci tegee awra am nga bàkkaar te ëllëg yowmal xiyaam di nga ko layoo sa loxo bii boo ko tegee fu xaraam am nga bàkkaar ëllëg yowmal xiyaam di nga ko layoo xale boobu su wéetee si néegam dem ba bëgg a seetaan film bu jaaduwul danaan ah digganteem ak yàlla lay xool sama bakar bi nan lay def ba tuub loolu la cheikhul xaaj malik di wax ne raa yaaka fatrut an maxaarabi rabbina waaw nee na sa cër yi juróom-ñaari cër yi bi min sati taqwa na ko sàmmee yetu ragal yàlla maanaam fexeel ba ut leeru ragal yàlla ci sa bopp su bët bëggee xool lu xaraam nga ne ko ah wàcceel sa bët mu wàcc su tànk bëggee dem fa xaraam nga ne ko déet foofu xaraam na su loxo bëggee lallu xaraam ñu ne ko déet xaraam na kon yar bi ñu commencé woon solution la ci réseau sociaux yi tey mooy am na koo xam ne nag li àddina bi di yàqu yépp téléphone bii lu ci ci seetaan lu dul lu baax kooku lan moo ko may sens mooy dañoo teel a def ci moom yàlla mais képp koo xam ne defuñ ci yow yaru diine ñu bàyyi la kii dina la alag àddina alag la alaxira kon ñi ngi ñaan premièrement waajur yi ñu teel a yar njaboot gi def ci ñoom yàlla ñu moytu balaa ñuy rocc seen imaanu billah beneen bi ci des mooy état bi na taxaw ci réseaux sociaux yi ni muy doxee mboolem secteur yi nga xam ne affaire sexe rek moo fay def moo fay dox ñu bloqué ko bàyyi information yi bàyyi xam-xam yi bàyyi yeneen culture yi nit ñi bëgg xool loolu ñu xool ko te loolu gëm naa ne jafewu leen mais bu ñu ko deful doo yar sa askan ni nga ko bëggee askan wi ngay am mooy askan wu fuyu faya askan woo xam ne seen bopp diine nekku ci culture bu baax nekku ci xam-xamu àddina sax newu ci da ngay mujj loo bëgg a def tubaab bi ngay wooyu mu defal la ko soo bëggee defar tubaab bi ngay woo mu defaral la tali soo bëggee defar avion tubaab bee la koy defaral sa ndox sax bu taayee tubaab bee ñëw ngaccal la ko parce que da talul jàng yaa ngi ci téléphone yaa ngi ci internet yaa ngi ci théâtre yaa ngi ci sexualité yi rek loolu bokk na ci li nga xam ne lu triste la ci àddina bi ñu nekk maa ngi fàttalil waajur yi ne leen téléfilm yi bu ñu xamoon ñi ne seen ginnaaw danañ ko moytuloo xale yi bu baax ñi ci ne dañu am dañu am intérêt pour nit ñi banaliser sexe pour nit ñi banaliser bakaar ba dootul doon dara ñépp ñeme ko te loolu bu ñu ko defee yàlla génn ci ñun yàlla musal yàlla bu yàlla génn si askan bi waaye imaam balaa ñu lay eh, jox nga tàggatoo rek dañ lay jox suñu dernière question muy jeunesse bi njàngum daara ak njàngum nasaraan. Euh, njàngum daara day nañ ko njàngum nasaraan mii yàq na suñ doom yëpp képp ku ko wax nag ñu ne kii dof la parce que nit ñi dañ defe ne ku jàngul tubaab ab dof nga ku jàngul tubaab ngaaka nga ku jàngul tubaab danga nga français mooy lan ñun daanañu dund avant école tubaab bi di fi nekk école tubaab bi tax ne kenn amatul accès ci alquran ñi am accès ci alquran ñu néew la ku jàng alquran ba jeexal ko jàng laxdari jàng ashmawi jàng muqaddimatul izziya jàng ibnu ashir jàng risala jàng misbaax jàng xaliil terewul yaa ngi dem di liggéeyi mag ñi bu njëkk lii lañ daan def ñépp ko daan def mais école tubaab bi ñëw ne da ngay gis ko dund ba am 30 ans mais xamul sax luy laxdari mosu parce que lan dafa bëgg dégg français. projet bu bon bi Akon na ngeen ma baal Akon City bii ñu bëgg a tabax fii nga xam ne mooy projet bi gën a bon ci siècle bi ñuy dund lii ñuy kaas nii di ko yàq bu Akon ñëwee kenn dootul waxati Akon City bii bu ñu xoolee ba pare mooy xoola waaraate booy boo nu bàyyi ko lépp lu ñuy xalaat naan lii lu bon la nañ ko nëbb moo koy instauré fii ci senegal te Akon déggul français xaalis bu dul jeex la indi déggul français déggul wolof. wa kon bu ku dégul français da ngay torox ay eh, kon mom fan la jëlé alal du tuba bay tax nit am alal du lak anglais tax nit am alal alal dañ koy liggéey xam-xam dañ koy jang. nañu fexé nit ñi jang diiné xam-xam yu reuy yi mën nañ ko jangal nit ci lak wolof man dama d'accord ñu sensé suñu éducation nationale éducation nationale amul Sénégal man ma wax lool éducation nationale amul Sénégal éducation occidentale mo am Sénégal Sénégal bu fekkoon dañ ñuy yar ci suñu diiné, ci suñu aada ñu wax ni éducation nationale la parce que dañ ñu yar ci culture sénégalaise bu ñu yaroon ci diiné, ñu wax ni éducation religieuse moo fi am mais éducation religieuse nekkul ci école yi éducation nationale culture Sénégal amul Sénégal mais éducation francophone la ñu andil Lool motax ñun ñu am différence ak suñu wajur bu baax nañu delloo njabot gi ci daara yi dañuy def ay budget boo xam ne 40 pour cent ci budget Sénégal lépp ñu dugal ko ci njàngum tubaab daara yi kenn dugalu fa dara taalibe yaa ngi yalwaan ñi ngi koy kaas mais nañu xool ndax jox nañ leen seen àq ba pare am na ñu fi tabax ay internat di jàngale lu dul jeex état bi deful ci ñoom dërëm ñiy jàngale làkk tubaab mu leen di jox alalu Sénégal te alal jooju ñu ñuy jox waa daara yi seen alal ma nga fa loolu warul mën a nekk kon bu ñu bëggee éducation bu baax nañu def éducation religieuse mu ànd ak suñuy aada ak suñuy culture ak lépp ñu xam ne ab sénégalais nii lay mel nii la ñuy tabaxee nit wa illaa xam nga lan la ñuy tabaxam li sëñ Habib Sarr doon wax ab tubaab bu ñuul xawma tubaab bu ñuul am na déet mais nee na tubaab yëpp tubaab bu ñuul ci yées tubaab yëpp tubaab bu ñuul ci yées parce que nekkul tubaab nekkatul nit ku ñuul nit ci diggante bi ñun façon boobu lan ñuy def kon maa ngi ñaan ñu changer éducation bi ñuy wax éducation nationale te religieuse amu ci nañ def éducation religieuse éducation culturelle dindi éducation occidentale su boobaa yi ñuy coow nii dana dañ te ma ñaan projet Akon bi maa ngi koy waxaat journaliste yi rajo yi télé yi na ci ñëpp jàpp bu ñu seetaanee ba mu am Sénégal kenn dootu ko mën a defar kenn dootu ko mën a defar te moomul xaalis bi nag ñun xam nañ ne ay lu buy rëy rëy nekk ci ginnaawam yal nañu yàlla musal amiin yaa rabbil alamin tàggatoo la waa askan wi tàggatoo la ko waa waaw xanaa di wax ne seen mbokk la woon imam Babacar Sylla ak diaspora bi ànd ak yéen ci fii ci euh, Safina di leen jaajëfal. di jégalu bu baax ci guddal gi jaajëfal soxna yi mi nekkoon ci émission bi ak ñun waaye jaajëfal sëñ Petit euh, xanaa léegi mu nekk grand incha allah <laughs> Petit dina nekk grand balaa yàgg di leen jégalu baax bépp kàddu bu fi jàll te jaarul yoon ñu ngi koy jégalu. lépp loo xam ne jàll na fi te jaar yoon nag ñi ngi koy sante yàlla xam ne ci moom la di leen encourager di leen ñaanal yàlla yàlla gën leen a yëkkati gën leen a kattanal ba fi ngeen bëgg a yegg ngeen yegg fa ci barke yonent bi sallallahu alayhi ah di nuyu di ziyaara Cheikh Ahmadou Yoro Bane ak mboolem ñi ànd ak moom ci rajo beeg télé bi yëpp incha allah. jërëjëf foofu la ñuy jaaree ñu nit di nuyu bu baax a baax ah, Thierno Hamidou Bane di ziar bu baax a baax la directrice Ñuma Ba madame Gange di ziar waa Safina yëpp di la jaajëfal bu baax a baax sa disponibilité imam Babacar Sylla waxtaan bi am na solo ñaan yàlla rek mu may ñu dégg ak topp lépp lu fi jub na ko askan yëpp jël njariñoo ko ci kàttanu suñu borom di jaajëfal bu baax a baax sama caméraman di Petit Fall di jaajëfal bu baax a baax ki nga xamante ne moom mooy euh, soxna Seynabou Ndiaye madame ñi moo génn fit ci sañsa bi borom teranga yu baax yi nga xamante ne dafay topp ci ginnaaw magam ya nga xam ne ñu ngi ca kër ga di ànd ak moom di ziar kullukum di jaajëfal ñëpp bàyyiwuñu kenn kullim doomatale waaye mbokk maa lay jox dig daje fan yi gàtt fii ci beneen émission ak beneen kilifa jëre ngeen jëf